maanaam nag wax dëgg yàlla adversité politique warul tax nit ki euh, ne sama adversité lu ñu ko def rek baax na du dëgg yow nga werante fii ak nit ci plateau bi ngeen ñàkk d'accord war na tax nga ñëw pees ko wala njox ko kaas nga ne bu mu fi ne ndox tey que dafa am un minimum Sonko xamul kaso bi yàlla bu mu ko xam mais man xam naa ko boo duggee fi ngay jëkk a jot ci bu dee euh, kii bi la bi ngeen tuddee cent mètres chambre bi ngay jëkk a jot mooy chambre une même malaaka safara yi bu leen fa yàlla euh, yóbboon mën nañ faa def stage ndax nit ñoo xam ne dañ leen di def nii gis nga nii ci nii bopp bopp tànk bopp tànk bopp tànk amul wëlbati ko amul dara vingt quatre vingt quatre ñii fa ñu toog fa la ñuy saw fa la ñu tëdd fa la ñuy sax defee lu raw loolu loolu wax dëgg yàlla lu ma sa sam xol bon bon yàlla bu mu yegg ci ma di ko yéen sonk mu di fa def wax dëgg loolu laa ko waxee mais c'est que bi la Sénégalais non du revirement sëriñ bi mais dafa am kii c'est mon adversaire mais je ne lui souhaite pas la mort ñu bëri nee nañ foofu da nga def wax waxee ah kilifa gi muñ ko déggee noonu man bu ma waxee mënuma lu may wax waaye déggee leen ko nii moomu ko man li ma bëgg a wax mooy lu bon la ma gis yéenewu ko Sonko maanaam même bu doon dafa def loo xam ne ñépp ko gis ñu jàpp ko war koo tëj kenn werantewul mais am na loo xam ne yéenewu ko ko yéenewu ko parce que adversité dafay am fu mu yem man d'accorduma ak moom moom jël na sama patriotisme bii partem benn baatu patriotisme nekku fi jël na ko ba léegi ñu koy rapaajoo te danañ ko mos a réccu nag am na internet kat bi nga bi nga changé kàddu dañoo foog woon ne peut-être ni enquête bi demee danga sentir comme li askan yi wax ne dafa am complot moo waxal nga changé ne ku ko tëj ñu tëj non non li ma wax mhm. man dama fekkee 1968 université dakaar li fi nekk ne fi nekkoon xëy na téeméeram am na fi tey ci université bi 68 étudiants yooyu dégg seeni moromu étudiants ca Sorbonne ay kon bindi teg yooyu di manifester gars yi def ay barrage ñoom it mu ñu bëgg def comme tout le ay jeunes la ñu woon qui préparaient leur à l'université am ñoo xam ne dañoo taxaw ne Léopold yow t'es trop bon yow tu humes des fleurs à Normandie tu as une femme qui a le nez droit t'es trop bon Mais les Sénégalais ne connaissent ça. Il faut taper. Il faut taper. On a tapé dur. ñooñu tey mën nañ si tudd ñu baree bëri ñoo xam ne ñëpp xam nañ ay Diop de Croix ay euh, Bathily ay nangam ñu yàq seen avenir yàq seen jàng réew mi dem na ba Senghor mëntu la gouverner mu mu jigal nañ ko ba mu ñàkk pouvoir bi Jean Alfred Diallo moo ko ne du ñu mën a dañuy daje mees dimanche du ma la teree dem mees mais ñàkkoon na pouvoir bi pare ce qui est ne j'ai vu les ñuy toog di taxaw di ki kii yi ne ko indil indil ñu ñu ñu dindi immunité am damay alerter les Sénégalais que bu Sénégal yàqoo ma yàqule loolu laa ko waxee mais j'ai dit li nga xam ne li normal nañ ko def ñëpp ba y compris Sonko mon adversaire ok parce que aji Sarr citoyen sénégalaise la am na problème jafe-jafe dem porté ji plainte léegi daal bu ñu suivre logique bi nga wax mooy justice warul instruire plainte bi alors que citoyen la te porté plainte droit la ci citoyen bi da nga koy verser au contraire kooku bu tax bu ndaw sale taxawoon ci misaal ñëw moom tam loolu mu jiiñ ko Moustapha Niasse mi président assemblée nationale keneen jiiñ ko questeur bi keneen kan su kenn ko def ñu di humilier bi dootul am parce que bu yoon dafa liggéeyam ay kon Sénégal justice amu fi impunité. ma ne am na ñoo xam ne sax am na ñoo xam ne sax plainte nañ ñu demee noonu te dañ ko def kii rek classé wala yeneen. c'est-à-dire que warul nekk loolu buñ ko toppee affaire bi du dem euh, Sonko Sonko man d'accorduma ak moom ci lu bari. waaye d'accorduma ci ñu tooñ ko. est-ce que loolu revirement la kon revirement la. mais yow nga ne d'accord pour ñu tooñ ko mais njëkk nga wax nga ne euh, lii euh, Sonko waru ko woon def su fekkee ne am na loolu la ñuy jàpp nga ñëwaat nga ne cautionné woo ko mais comme lu mouvance présidentielle bi di wax ne affaire euh, affaire Sonko Adji Sarr c'est une affaire yow loolu jàppee woo ko noonu parce que tey bu nekkee ne c'est Sonko c'est un homme politique rek waruñu koo tëj prison citoyen lambda bi tamit di ci gis boppam. dañ dem ba day ah, xam nga par moo nekk président wax naa ne euh, polygame la parce que amoon na ñeenti jigéen ñu muy digaaleel xëy na kenn ki moo cay jabar avec papier ñi nekkuñ ko mais ça ne fait pas de lui un polygame au sens islamique. cest à que li may wax. point de vue de l'islam góor gu ami jabar warul wéet. c'est ça ak beneen jigéen ba ñuy tëju mais ça mais ce n'est pas le seul point de vue de l'islam l'islam réew mu ne ak na mu koy appliqué ci ñi koy appliqué ñun appliqué wuñ ko ji Arabie Saoudite kooku euh, bu bu nekkee jigéen moo woon tey jabari ki nga tudd ci misaal bu dem moo dem am benn xale góor bu koy bësal ñuy tëju xam nga ñëpp dañ koy ñaawlu tëb waaw pourquoi bu nekkee góor la duñ ko ñaawlu ci lislaam nag benn la kooku loolu ñoom loolu lañ koy atte mais au Maroc viol bu borom bu kii violé bu takkee ndaw si rek le viol tombe y a plus de délit te ñoom itam ci charia la ñuy basé mais man son bopp dama exclure man son bopp sama conviction personnelle gëmuma ne liñ ko jiiñ def na ko gëmoo def man gëmu sama ngëm-ngëm personnel la mm-hmm. gëmuma ko xaw ma kon musumaa toog ak Sonko mais gëmuma loolu. ñëw na si question bi parce que dama ko bëggoon laaj rek bu nee Sonko d'accord ma ñu tooñ ko kon dafa nangu ne daan yu ñu ko bëgg a teg du du gëmul ne moom moo ko def te defe naa ci ci ci loolu la tontu. loolu nekk ko nag gëmuma ko ça ne pas que defu ko. man gëmuma ko personnellement. Mm-hmm. yow bés bu ne nga ne ci kër am sax doom ñëw def naa nga. nga ne déedéet sama doom deful dara. Mm-hmm. bañ da wala leen moom moo def mais man personnellement je ne pense pas. que question yi lay privilégié après <laughs> observation yi mais mais Pape Pape baalal ma rek bu nee nee gëmul euh, question mu def mais dafa am lu wax lu am solo mu ne bu nekkee ne euh, tey euh, comme juge lañ lañ lañ jiiñ viol ñu tëj ko ñu jiiñ kële viol ñu tëj ko muy mel ni da nga neenal bu nekkee ne koo xamante ne dafa am nomtërati ay ndombal tànk buñ ko jiiñee viol dafa mel ni pour yow dañ koo wax a classé balaa muy indi ay nomtërati ruumbandaat yu bëri ci dëkk bi. dafa mel ni da nga neenal loolu daal. dama wax ne lan. da nga neenal comme ku am ay ndomba tànk ci dëkk bi. ku nekk député am ay ndomba tànk mun na nekk juge mun na nekk ministre buñ ko jiiñee viol dañoo war a classé dossier bi mel ni ku ko jiiñ viol moom non non nag. buñ fi nekk di def nag li gars yi wax hypocrisie mm-hmm. sociale. Mm-hmm. dégg nga a jamais de fumée sans feu. Mm-hmm. si le même si le frère de Sonko si c'était le frère de Sonko. qui est concerné y rien y aurait mbir boo koy tondale dafa am foo koy dendale il y la personne qui gêne politiquement man Macky laa àndal waaye maa wax Sonko il gêne politiquement il gêne politiquement ah ok loolu laa bëggoon il gêne ah. même moi je gêne quelque part <laughs> d'accord man euh, sama question mooy euh, c'est pour euh, mm, sunu papa ji toog voilà li ma koy laaj mooy comme Sonko ci communiqué bi dafa ne woon dafa avant muy muy dem ci salon de massage bi. Hmm. dafa woo benn oustaz daat koy laaj lan la lislaam wax si beneen jigéen di la maase bu fekkee sa santé moo ko laaj moom dafa ni dafa feebar te daf koy def pour faju oustaz bi daganal ko ne ko comme da ngay faju rek. oustaz bi daganal oustaz daganal du weddi yàlla. Hmm. loolu rek loolu wax la joo xam ne euh, ci droit mooy li ñuy wax non écrit yéen ñoom ñoom juriste xam nañ ko. Mhm. donc daganal non écrit lu jàngaloon. le non écrit en droit. loolu. moo bind koog bi mu ne ak mu ñàkkoon ne oustaz bi mu ne mooyam awa ah non c'est bon. Euh, euh, joxe suñu xalaat ci ci ci mbir mi mbir mi dafa nekk mbir boo xam ne mbir bu mbir bu complexe la je dis que su jëmmu Sonko jëmmu Ousmane Sonko moom moo toll noonu moo tax coow li. dool ni mu dol nii loolu aussi foog ñu jël ko en considération euh, ça c'est un deux Sonko dafay politique il faut forcement que mbir mi am li ñuy wax connotation politique xam nga tey jii bu fekkee ne dañu ne Sonko dafa wax ay militants am ci mbedd bi ñu taal ay pneu ak yooyu mais je rappelle que le président Macky Sall moo ne woon ab président Abdoulaye bu génnul ci pale bi na armée Sénégal jël seeni responsable loolu mi ngi ci internet nit ñi mën nañu ko xool nañu wàcc ci tali bi xaañ ay xeer Moustapha Niass bi nekk président assemblée nationale jiite institution bi gën a mag ci dëkk bi moom moo yoroon xeer xale yi topp ci ginnaawam donc kon dafay mel ni yow boo xësee ba nekk au pouvoir rek yow da ngay fàtte da ngay da ngay fàtte te diggante démb ak tey damay wax ne fàtte xaju fi Sonko est dans son moom dafay politique bu ko neexee mu woo ay ay ay ay ay militants mais li ma ciy ñaawlu mooy ñuy yàq. bien boo xam ne nit ñi ñoo ko bokk ay oto ay car ban loolu laa siy ñaawlu mais mbiru politique mbiru mbiru politique la te bu ñu dee xool chaque jour deux poids deux mesures bi dafay nekk fa parce que président Macky Sall nañu bàyyi xel li mu wax moom dafa ne man de bu ñu joxee dossier ki ñuy wax procureur mu wax ko ministre ñu wax ma ko man président de la république bu fekkee mbir mi dafay taal dëkk bi man dama siy dëgg sama tànk pour pourtant Sonko du du du du nit ku tuut ci dëkk bi parce que yëngu-yëngu yi wane na wane na wane na poids wam wane na darajaam wane na ni mu toll ci dëkk bi. Mm-hmm. est-ce que kon tey président Macky Sall discours boobu mu defoon ci 31 décembre est-ce que mënu mënul woon xalaataat mu ne sunk mi buñ ko jàppee yóbbu ko si kaso bi mais dëkk bi tàkk moom moo ko wax. Mm-hmm. nee na bu nee na bu dëkk bi naree tàkk day jël affaire bi dëgg si tànkam. Mm-hmm. mais nu sommes dans une situation d'une extrême gravité. boo xam ne tey jii Ousmane Sonko bés bu ñu ko yóbboo ci prison bi. mais dëkk dëkk bi dina ko yëg te dëkk bi ñun du ñu nangu kenn taal dëkk bi parce que dëkk bi suñu dëkk la. suñuy doom dañu war a màgg am fi avenir bu rafet donc loolu lañ doon wax pour attirer la attention des mécanismes. pour que ñu gérer dossier bi ak beaucoup de professionnalisme. benn kii defe naa ba nga demee ba nga demee école. ba nga demee école. am na loo xam ne jàngal nañu la yaa ngi koy mokkal ba tey. mooy lan comparaison. mais pas raison. <laughs> ci Thiel voilà merci beaucoup donc. Euh, yow Macky nga àndal. ah waaw <laughs> te nëbboo ko de ah yow si tàmbali waxtaan bi nga wane fi nga far. non man yow da ko teel a wane. oustaz man Macky la soutenir maak moom ñu ànd campagne. ne nag y a des exceptions. c'est ça justice bi ñëpp na dañ koy lëbëj. tey sax tey tey rek jot naa lettre boo xam ne ci benn direction boo xam ne dafa kaase benn contrat bu mu amoon ak man ci bi mu déggee sama déclaration. moo tax sénégalais am nañu. waaw d'accord sénégalais am nañu Sénégalais yi am nañ ci turu loolu dafay am. Sénégalais am nañ mbetteel ci yow de man message yi ma jot nee nañ xàmmeetuñu docteur Ahmed Khalifa parce que ñoom si bande annonce bi. bi nga ne yow Sonko maanaam ñu yóbbu ko kaso xam nga boo ne sama bakken laa si teg wax jooju dafa diis de. moo tax ñoom xàmmeetuñu. loolu tey laa ko position boobu nga jël bu bees boobu nga jël. loolu tey laa ko gën a wax. position humanitaire dama ne. loolu tey laa ko gën a wax dama ne. du ma du ma nangu ñu toroxal ko te tooñ ko mooy toroxal ko. c'est ça loolu ça demeure. est-ce que buñ ko jàppee kon say taalibe duñ jub yow say taalibe duñ jub xam nga du moom rek. yow borom doole nga de. est-ce que buñ ko jàppee kon say taalibe am na fii am na hmm? fii ay nit ay activistes yu ñu xam yu notoire. Hmm? yoo xam ne jàpp nañ leen. wala ñu ñu nekk ci ay problème kenn mën leen a gis mais dem naa ba wax ak. ministère de la justice bañ ma may ma ma téléphone te wax ak ñoom mhm. yëkkati sama alal def ci mhm. même yanaamaar mii bañ leen njëkkee jàpp Rufisque mhm. samay añ laa toog fi yónnee leen ko loolu pré ñun ñàkk d'accord ak nit du tere nga yelleefam buñ ko ko kenn man damay bañ ñu jàppale rek damay bañ nguur gi jàppale parce que boo boo nee boo Sonko ñu jàpp ko sa bakkan nga ci teg yow kilifa nga te da nga am boobaa say taalibe est-ce que duñu jóg mën nañ la jàppale oustaz déedéet loolu yaa ko foog gis nga nit ku ne la ngay def ba njàpp la xam nga. ah nguuru gi dañuy jàppale déedéet yow yaa ko yóbbu foofu dama ne la. Mhm. ñun Macky bi ñu koy xam mi ngi ñaa nga école. xam na nañu ay waajuram côté ndey côté baay ñu ci bari ay ñaseen lañ demeewul noonu. mais mais li ma bëgg ñu dellu si ci mooy dama ni. su fekkee ni dañoo bëgg boo contrer nit buñ nee ña ngi koy rey nga jox leen paaka man duma ca bokk. tuuti professeur. Euh, mooy justice d'exception bi ngay wax depuis tout à l'heure parce que comme major nu mu ko xamee rek danaan la loi elle est générale et impersonnelle. donc on peut pas que une personne. voilà elle est célèbre et tout elle est connue. gis fi ay dossiers yu bëri. du ma tudd tur nga gis ko koo xam ne duñ ko place su mandat de dépôt ou bien dañuy accélérer dossier mi jugé ko gaaw pour mu ñu libérer ko et tout et tout alors que ni y a des gens qui croupissent en prison qui sont toujours en en détention préventive jugé guñ leen donc su fekkee ne tey Sonko euh, il est connu rek ñu ne Sonko war a dugg prison alors que ne am na kenn koo xam ne ñu ngi koy accuser pour les mêmes faits te wóoraguñ ko te euh, il est placé sous mandat de dépôt donc ça aussi ça pose problème. Euh, soxna si nag dafa nekk débat. te débat bi mënu àkku moo wax ci waaye man su fekkee nañu ñu bokkal débat bi may nañu ma benn marge dinaa expliquer li nga xam ne moom moo jëm ci Sonko gis nga UPS euh, parti PS bi ñu wax MFDC ci composante yi la bokk xam nga loolu xam nga ko la déet MFDC et membre fondateur de l'Union progressiste sénégalaise le MFDC originel, originel, qui a été fondé par Ibou Diallo, Ibou Diallo et Émile, et tout, ouais. En même temps que le Parti démocratique de Kédougou. xam nga bu ñu la waxee Parti démocratique de Kédougou ça fait rire boobu Kédougou amul mille amul benn habitant parce que noonu lañ ko sowaaree Sénégal région yëpp dañoo amoon ay partie pour que su fekkee ne ñoom liñ bëgg a architecture Sénégal amul ku ci ne xëcc sa indépendance ñu doon pousser Casamance pour mu xëccu pour indépendance am léegi bi nga xamee ne nag parce que boo dañu bëggoon a imposer Senghor te xamoon nañ ne rejet yi bare na ñu jóg léegi nag bi nga xamee ne gis nañ ne rejet yi melul noonu ndax sëriñ si sotti nañ ci ndox ak ñeneen ak ñeneen ñu daal di fédéré parti yooyu mooy def ko Union progressiste sénégalaise bokk na ci mouvement Saalum Saalum ju Momar moo ko sosoon amoon na ci mouvement Njàmbur Njàmbur moom itam parti la euh, Moustapha Cissé bu Louga à ne pas confondre avec bu Pire mm-hmm. yooyu lañ jël def union progressiste sénégalaise léegi nag bi nga xamee ne Senghor jógee na fi am na yum laajoon Abdou Diouf y compris na avion présidentiel nekk ci disposition am nanga tel pourcentage ci fonds politique yi nàngam Abdou Diouf di ko def ba ba ñu fal ko mu bañ mu yónnee laaj sengoor Senghor ne ko noonu euh, non euh, loolu dama ko doon defee yow lañu ñu éliroon loo ma sant ma def ko léegi nag man nañu élire dootoo ma jox ordre moom nag ci la mu dénku dencoon mu wax taalibeem jamakun jamakun santul sengoor jamakun la sant mu ne ko na taalaat na taalaat MFDC loolu ci suuf la jaar mu taalaat MFDC man mii di wax ak yow en mai mille euh, euh, en décembre 1982 euh, man ak Sidi Lamine sama rak borom kër gi tey ñu ngi ñu jàpp fii ci kaso boobu fekk ma laaj ma lakkoon drapeau France bi ca 1900 ca ca ca mai 1982 man ak moom ak suñu yeneen i bokk mais biñ indee waa Casamance yi jamakun Sidi Badji Kourouma Sané euh, kamu gi ainsi de suite ak jigéen yu bari nga xam ne ñoo doon waa bo euh, waa bois bi bi ma leen gisee ñi ngi ci sonn wallahi sama rongoñ wadd ma dem ne nañ wax sama waa daayira yi ni ñu togg ay daayira dañ togg ay añ di ko indil waa Casamance yi ñuy lekk dégg fii ñu toll nii dem nañu ba Casamance dafa toll ci jàmm euh, xal ya léegi doom la pour mu jógee ci guerre nag dem ci paix man je pense que le Sénégal a besoin de Sonko comme pacificateur de la paix entre mm-hmm. pour que dootuñu wax waxu Casamance comme entité comme nangam te moom doomi Casamance la doomi MFDC la man sax damay wax ne boo jëlee listu membre MFDC ak bu Pastef boo tegalee ñaari liste yi quatre-vingt pour cent yi dina am conformité man rek la engagé nag daa hmm. ko wax sama gis gis-gisin la hmm. donc loolu dama bëgg ñu ñu baaxal ko ñoom nag nguur gi ñaare buñ buggee jubóog yow danañ lay jaarale ci kaso man mii ak Sidi Lamine bañ ñu téye terewul dañoo génne euh, proviseur bi hmm, kii bi kii yore kii yore kaso bi nu régisseur régisseur bi dañ koo génn këram jox ko moog waa këram ñu dem hôtel jox ñu këram ñun ñu tëdd fa ay mbinaanam ji du ñu nettoyé bu guddee ñuy oo ñu président ñu waxtaani te pour ñi ñu ngi ci kaso bi te yi ñu ngi waxtaan ak ñun donc xëy na ñoom la ñuy sànni lu sori mooy waxtaan ak moom ba léegi ñu solal ko le manteau du pacificateur du pays buy uniraat man sama démarche yëpp de A à Z ci foofu rek lay visé. d'accord mais am na foo xamante ne. Euh, docteur il faut nga préciser sa pensée xam nga Sénégal.